74 Amadou Ba am 93. Mhm. maanaam 101 la ko rawee ci bureau boobu. d'accord bureau numéro 19 euh, ki nga xam ne mooy euh, Bassirou Diomaye Faye mi ngi am 235. Mhm. Amadou Ba am 129. bu laag bureau numéro 20 euh, kii di Bassirou Diomaye Faye mu ngi am 214. Amadou Ba am cent trente et un bureau numéro vingt deux mu nekk daj dëpp gi moom euh, ki nga xam ne mooy Bassirou Diomaye Faye mu fa am deux cent sept voix Amadou Ba am fa cent dix sept voix bureau de vote bi mooy bureau de bi gën a ci Dakar euh, Plateau euh, d'ailleurs faculté yu bëri fa la ñu daal di voté ku ca mel ki nga xamante ni bi rek mooy doom ci Macky foofa la voté ak euh, ministre yu bëri foofa la ñu daal di voté euh, mu nekkoon li nga xamante ne bii rek euh, moom lañ fa daal di nemmeeku bureau de vote bëri woon lool waaye nag kii di Bassirou Diomaye Faye moo teg loxo ca benn deux bureau de vote nekk foofee. Mhm. li ma gis ci li nga xam mooy tendance bi gis nañ ne que jamono bi ñu toll ci Dakar Plateau man bureau de vote bi ma yëpp yëpp yëpp kii di Bassirou bureau ya yëpp moo jotaal di teg loxo. mu nekk loo xamante ne bii daal dinañ ko fay nemmeeku euh, li ma gën a nemmeeku tamit mooy dañu gis ne que représentant yu APR yeeg nekk ci bureau ba commencé compte ba ñu daal di génn lu ni mel euh, mu des fa ñi nga xam ne ñooy yeneen représentant yi ak waa euh, Diomaye président ñoo fa desoon doon compté li nga xamante ne bii rek mooy vote yooyu rek kenn ci ci Dakar Plateau moom. gisoon nañ ci suba demoon nañ fa xool nañ constat bi euh, nit ñi ñu doon normalement amul woon benn problème benn problème lañ doon woon mooy ñu ñëwoon avec ordre de mission dañ doon biir de voté ba pare bëgg a jël euh, ordre bi yaa di donc ñu daal di résoudre problème boobee euh, ba tax nag ñu daal di ko fee nag ci école rëbës moom man benn ci président yi moo daal di teewawut woon pour mën a pour mu mën a démarrer ci bureau numéro 3 bi. loolu moo tax nag euh, mu amoon foofu benn rëq-rëq mais lijjanti woon nañu fa Alioune Badara. d' accord Khadija ñu ngi lay gërëm bu baax a baax. <laughs> merci waaw jaajëf. muy noonu ñu ngi koy gërëm euh, Ndeye Fatou mel na ni Khalifa Sall itam daal dinay génn euh, félicité ki nga xam ne moom moo di Bassirou Diomaye fay moom di Khalifa Ababacar Sall bokkoon ci candidat yu doon. compétir ci euh, élection bi génn na amal ab benn not bu mu def euh, ngir féliciter ko ki di Bassirou Diomaye fay ma liiral leen ko rek yéen ñu ñuy seetaan moom Khalifa Ababacar Sall nee na les Sénégalais se sont exprimés ce dans la paix et la sérénité montrant une nouvelle fois notre attachement indéfectible à la démocratie Je félicite le peuple sénégalais pour sa maturité et sa responsabilité. Je remercie les électrices et les électeurs qui ont porté leur suffrage sur ma personne. Leur confiance m'oblige et m'engage. Je, je félicite vivement Bassirou Diomaye Diakhar Faye que les tendances lourdes placent en tête du scrutin. Khalifa Sall mu nekkoon euh, ab note bi nga xam ne moom la def rek euh, daal di si félicité kookee nga xam ne pour l'instant résultat yi moom la jox daal euh, ni moom moo féetee ci à la tête de l'élection Alioune. Mhm. contrairement à Barthélémy Dias. moom mhm. dafa daal di cité. Mhm. turu ki nga xam ne moo di Diomaye. Euh, Bassirou Diomaye Faye donc xalifa moom wax dëgg yàlla beneen kii la beneen niveau la ci wàllu politique euh, mhm. bokkul nag ak ak ak ak euh, nu mu tudd ak Barth Barth nag xam naa ni xale la te ba tey dafa am fu mu taxaw foo xam ne daal peut-être bés dana ñëw mu daal di fay xëy na. am tout à l'heure dafa wax lu am solo mooy teel a nangu. ay euh, dóor ay ay ay <laughs> voilà day day yombali dóor exactement teel a nangu day day yombali dóor Bart bon bu fekkee dafa am de problèmes euh, personnel entre moom ak euh, Sonko ou bien moom ak Diomaye loolu mën na ko régler à l'interne mais nii nii nii nii nii ñëpp gis nañ ni maanaam dafa rafetoon tey nga génn félicité félicité nit ki tamit ni am na ku ne ci ligne bi ah, kii jël ko nday faatu jële ci ligne bi allo salaamaaleykum sëñ bi nag nga def maa ngi sant bu baax euh, ñu ngi lay nuyu di la wax nga fàttali ñu tuur bi ak fooy woote waaw Khalifa Sarr la mm, euh, baal ma dafa mel ni jokkoo bi neexul de mun nga répéter mu ne mu ne Khalifa Sall Khalifa Sall kañ la dugg ci suñu live bi koo bëgg a félicité jamaay mais mais Khalifa taxawal koo bëgg a jamaay waaw man affaire moo leen ah. dafa mel ni. Euh, defet bi dala xaw a jàpp ba sa réseau bi baaxul. est-ce que doo ah, waa jubantigul tuuti rek ñu déggante. man maa maa ngi ah Fatick ndeysaan euh, naka waa Fatick. ñëpp ak jàmm ñu sant bu baax. alhamdulilah noo gisee résultat yi nga xam ne mu ngi tàmbalee rot jamono ji. waaw affaire bi dafa léger quoi affaire bi naan naan man man affaire bi man damaa xam ne bii comme comme dañ hmm? ko. Amadou Ba am na côté. Hmm? mais Amadou Ba. waaw. waaw bëri na fu mu gagné de. ah. dañ ko war a wax. man man man. waaw mu bi dafa xaw a naqari est-ce que la bàyyi rek nga coupé woote waat. waaw bi xaw na xaw na naqari. waaw moom nag euh, maa ngi koy tooñ sax naan ko mhm. Khalifa Sall kañ nga dugg ci suñu ligne bi. nee na Khalifa Sall la tudd xam naa nag daa bëggoon a féliciter Diomaye mhm. ci li nga xam ne moo di ndam li. ñu jël ko muy ngi waat ci ligne bi xaadi euh, Ndeye Fatou jël ko. Euh, mu ngi ñëw am na kuy ñëw allo voilà dafa mel ni ki si ligne bi dem na euh, Alune waaw daa mel ni euh, Barthélémy Diaz defaat na ak euh, benn communiqué bu mu publier waat boo xamante ne ni xaw na ute ak bi mu defoon ah, tout à l'heure voilà dellusi na te si bi voilà dellusi na donc si vous le rek ma liir ko gars yi ñu déggandoo ko voilà si communiqué bi mu ngi wax Au vu des informations qui me parviennent, je réitère mon, invitation à tous les acteurs de tous bords à accepter les résultats des urnes. La politique est faite de victoires et de défaites et nous avons eu le privilège et la grâce de connaître des victoires et des défaites. Je félicite le président nouvellement élu au premier tour selon les dernières compilations de résultats qui nous parviennent, Monsieur Bassirou Diomaye Faye. Je lui souhaite santé, réussite et plein de succès dans sa nouvelle mission que le peuple sénégalais lui a confiée en toute souveraineté vive la démocratie vive le Sénégal mu mel ni rek euh, déclaration bi mu defoon moom la daal di defaat rek xaw ci laalaat un peu quelque à quelque niveau daal di fi mu waxee woon ni président nouvellement élu mu daal di dugal euh, ci déclaration bu mujj bi turu bassiru Diomaye fay donc dafa mel ni Bart euh, fi mu nekk nii nangu na réellement que ni bassiru Diomaye fay daal di na gagné li nga xamante ne ni moom mooy élection bi mu félicité ko tamit ci félicitation boobu. mu koy ñaanal succès di ko ñaanal tamit euh, wér-gu-yaram par rapport ak mission bi nga xamante ne ni moom la am donc lii dafay dafay dafay nekk loo xam ne Aline euh, boo mu ko permettre rek ma des si benn commentaire bu ndaw laata ñuy jàll dafay nekk loo xamante ne ni euh, day wone ni nit ki mooy en matière de politique il savoir